xëy na xëy na si di di yàq sa ger ñu mën a wax ay auto te tey lan la ñu mën a wax ci kàddu yi nga xamante ni ñu gis da koy faral di teg. franchement loolu nag aw ma leen lu ma ci wax. waaw aw ma leen lu ma wax. non tey waruma jël défense buñ ma sagal. buñ ma sagal am bu ma fi waxee war a dara dafay yàq sama mbégte bi. Hmm. aw ma leen lu ma wax xaadim lañ ma jox aw ma lu ma wax. waaw day yàq lépp man daal fi mu ci mbégte laa bëgg wax safar lañ jëm waaw waaw dama ko bëgg a continuer macha allah ba jëju safar incha allah ah man amatuma lu ma tontu kenn tontu waaw non parce que euh, tey journée bi tontu na lépp samay mbokk ñu ngi fi samay mbokk borom kër ñu ngi fi ma lenn lu ma wax kenn waaw dog-dog nag bu ñàkk ci aadama waaw parce que tamit dañuy sant yàlla waaw ndaxte li ñu naan cat bu la raw fennal la rek waaw comme yàlla def na jàmm daal macha allah alhamdulilah. Mm. waaw instant yi moom lu wax baax na waaw man lépp lu wax baax na luñ man daal maa ngi ci xaadim <laughs> waaw macha allah waaw di di di kontaan Sénégalais ci di leen baalu at bu baax waaw di wax tam moom peut euh, dafa métti daal si moo métti des fois tu réagis à avec le temps tu du réaction bi ñëw rek nga war topp bu dul te am na la demee parce waaw man Cheikh Ahmed aw lu ma wax ci moom yoonam la nekk. waaw mais xam nga bokkul waaw man maa ngi sama yoon moom mu ci yoonam donc sénégalais yi nañ xalaat lu leen neex. l'essentiel man maa ngi sama yoon te incha allahu rabbi di ngeen gën a gis ay progrès di ngeen gën gis lu rafet parce que ci loolu laa nekkoon avant peut-être am na bëri maanaam ci loolu laa fas yéene nekk waaw franchement waaw euh, nekkaat ci leen lu ci lu ko neex moom franchement loolu laay ñaan ñëw ma nag dina yomb ci man mais damay ñaan rek damay ñaan rek damay ñaan te damay góorgóorlu aussi jéem yàlla def tamit ma gën a jege sama sama samay mbokk borom kër lu ma ni sama sama njëkk Fatou Badiane moo xam ne mooy taaw kër waaw mooy seen yaay daan kër amaana bu ma ko jógewee lu bëri dinaa ko mën a mën ndax ku ma bëgg la ku ma ubbi boppam la aussi. lan moo xalaat ne du yomb si yow. waa xam nga nekk xale nekk ci réseaux sociaux yi liggéey. des fois tentation bi ñuy am enri tontu am xelu xale bi fii xam nga surtout sëy ak kilifa dafa yombul c'est parce que nekkatul na bu dash mais aujourd'hui c'est la maman de Khadim wax man su ma bëggoon sax def bëgg naa taaloo maa la teg ci am na loo xam ne mënut ma ko def donc je suis peut-être obligée de me ranger pour le respect de mon mari et pour le respect de mes enfants euh, hmm. Hmm. ah xam nga diggante boo gis rek day am ay te ànd boo gis du ñàkk mu am ay ay ay ay ay ay waaw ay ay petit wax fii et tout mais man euh, awma leen lu may wax kenn lu dul euh, na ma ñëpp ñaanal je pense que bisu tey bii wax na lépp bu ma ci waxee la mën naa wax lu ëpp waaw Saga tout dire doona doomam Ahmadou defal na ma teraanga teral na ma jox na ma ay millions yu bëri ay mbokk ko sagal na ma na fi xar rëy maanaam amul lenn loo xam ne man mën naa kaa doolu dudul sant yàlla ak suñ sant suñ Tuubaa mi nga boole ak moom ndax si gën buñ bokkee ñun suñ tam ñoo bokk ak Mawlana Cheikh Ibrahima mais tey samay tante samay rakk sama ñëpp daanaka si waa kër suñ Tuubaa lañ sëy te it sëy nañ sëy goo xam ne kenn mosu leen dégg ci leen dama fas yéene tànk parce que man foofu laa judd foofu laa bokk te loolu laa nàmp waaw loolu mais man aw ma leen lu wax non non aw ma leen wax man xëy amatuma loo wax wax tamit naan Nabou Dash nekkul en état nan nga ma ko woon parce que man xam naa lan moo xew à l'instant ñoom peut être xamuñu woon mais tey yàlla leeral na lépp. Mm-hmm. yàlla leeral na lépp. la première fois. ci kàddu yi nga xamante ni vraiment ñenn ci ay Sénégalais yi dañu koy si kaw. Mm-hmm. bokk ci sa ndaw bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ànd ngeen fi ànd bu leen. Mm-hmm. tey nga taxaw ci réseaux sociaux yi di yàq sa ger ñu mën a wax ay autorités tey lan lañu mën a wax ci kàddu yi nga xamante ni dañu gis da koy faral di teg. franchement loolu nag aw ma leen lu ma ci wax. waaw aw ma leen lu ma wax. non tey waruma jël défense buñ ma sagal. moom sagal moom am bu ma fi waxee war a dara dafay yàq sama mbégte bi. Hmm. amul lenn lu ma wax xaadim lañ ma jox

tamit euh, juddu moom tamit du ñu programme mbirum yàlla la dañ sant yàlla rek dañ sant yàlla bu baax franchement. waaw sama choqué sama choqué parce que sama borom kër macha allah mënoon naa kaa mënu ko tuddee ku nekk waaye moom suñ toll si sëñ Tuubaa ma dama ko wax waaw dafa nekk wax ne dafa bëgg sëñ Tuubaa sonn ci waa kër sëñ Tuubaa di ci liggéey lu am solo. bu tuddee nag doomam daf maa delloo rek li ma moom waaw ndaxte man ko te sëy rek laa bëgg kon yaakaar naa ne lii dafa dafa gën a dëgër ak diggante li ñaan yàlla rek yàlla na yàlla bàyyi ak moom mais na ko lim nañ Euh, peut-être euh, conscience prise de conscience waa xam nga bu say mbokk bu la ñëpp wëree ñu fàttali la fi nga fi nga bokk doon ne mu nekk sët ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xam naa ne Sénégal euh, nga am ay erreur yoo def dangay awa dangay xaw am kersa waaw dangay xaw am kersa mais mbégte rek daal mbég naa loolu allah. Sénégal ñëpp xam nañ ko. mais boo ñëwee ba nga xam ne ab màggal bi nga xam ne ñu ci kër gi. ak nag ñu doon jokkoo ak ay kàddu. ah yërëm yërmande yërmande par exemple ku mu yërëm la ku mu bëgg la te aussi ku mu comprendre la parce que je pense que compréhension rek ak mbëggeel moo waral lii ndax mënoon naa yónnee. parce que ñoom dañoo am dëkk sa nijaay moo gën àdduna fan yi ñu génn noonu naa dafa jàpp ba mu yónnee sama sama sama sama sama njëkk yónnee ay feeram mais dafa ñëw kon rek moo mën loolu ak sincérité ak dëgg ak xolu jullit ndax bu ko neexoon ne fii ak fii lii ak lii am na fi mu jàpp ci loolu mais daf maa woon grandeur je pense que sénégalais yëpp tey seede waaw donc man li ma mën mooy góorgóorlu rek euh, bañ a bañ ci leen lu ci lu ko neex moom franchement te loolu laay ñaan ñëw ma nag dina yomb ci man mais damay ñaan rek damay ñaan rek damay ñaan te damay góorgóorlu aussi jéem def tamit ma gën a jege sama sama samay mbokk juróom kër li mel ni sama sama njëkk Fatou Badiane moo xam ne mooy taawu kër waaw mooy seen yaay

waaw day yàq man daal fi mu ne ci mbégte ci safar lañ jëm waaw waaw dama ko bëgg a continuer macha ni ba jësi safar incha allah ah man amatuma lu ma ah, tontu kenn waaw non parce que euh, euh, tey journée bi tontu na lépp samay mbokk ñu ngi fi samay mbokk borom kër ñu ngi fi amatuma lenn lu ma wax kenn waaw dog-dog nag bu ñàkk ci aadama waaw parce que tamit dañuy sant yàlla waaw ndaxte li ñu naan cat bu la raw yi la rek waaw comme yàlla def na jàmm daal macha allah alhamdulilah. Mm. waaw instant yi moom lu ñu wax baax na waaw man lu ñu wax baax na lu ma wax man daal maa ngi ci xaadim <laughs> waaw macha allah waaw di di di kontaan ci sénégalais yi ci di leen at bu baax waaw di wax moom peut euh, dafa métti daal si moo métti des fois tu à chaud avec le temps tu comprends que réaction bu ñëw rek nga war a topp waaw c'est ça. góor sax am na si seen jigéen lan la demee na waaw man Cheikh Ahmed aw ma ma wax ci moom moom yoonam la nekk. a waaw mais xam nga bokkul waaw man maa ngi sama yoon moom mu ngi yoonam donc sénégalais yi nañ xalaat lu leen neex. l'essentiel man maa ngi sama yoon te incha allahu rabbi di ngeen gis ay progrès di ngeen gën a gis lu rafet parce que ci loolu laa nekkoon avant peut être am na déroutement mais ci loolu laa fas yéene nekk waaw franchement waaw merci beaucoup macha allah merci merci